moy nonu nak triste nouvelle lañuy wax bo xamne nak nag daat nay am bésu pour tey bii nak nag nekk le 2 août mu nek nak lu doy war lo xamne nak amatina muy accident yi nga xamne nak jamono bi man nañ ne mo ngi bari lool nak ci rewum senegal ñu ñaan nak ñepp ñi nga xamne nak nag daat nañ ci faatu suñu borom subhanahu wa taala yërëm den xare leen aljina fi daw tay tey nak fele sa Bandia ñett ay doomu aadama ñàkkati nañ seen bakkan kaat daat si am ay gañu gañu ñett ñoo daal di ñak seen bakkan ñent daal di ci am ay gañu gañu yo xamne tax wax nañ ne metti na lool mu ngi amé nak si yoon bi nga xamne nak modi yoon mbur bi yoonu mbur bi daal mbir mi dem amé bilan bi nga xamne nak wax nañ ko daal moy ñett si ay doomu mo ñoo ci ñak seen bakkan am si ñent ñoo xamne daal daat nañ am ay gañu gañu bi lay sa yo xamne nak xawna metti lool lool lool lool sax nek nak lo xamne doyna war lool nee nañ nag ab ñaari camion ñoo daal di daje ak benn véhicule particulier mu nekk nag lu doy waar ñoo ngi ñaan nag ñëpp ñi nga xam ne nak daal nañ si ñàkk seen bakkan rek suñu borom subhaanahu wa taala yërëm leen xaaril ne àjjana du ñàkk dinañ si ñëwaat si yeneen i xibaar